asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 18 juillet 2019 ñëw ci yëglikaay yi jàppal sunu làmb yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëwati ci la fi amoon rek diggante Lac de Guiers de ak Boy Niang tey nag moom Double Less bàyyi Balla Gaye numéro 2 day moom daal moo ñëw dar ci dal ci kaw arbitre yi la def lees nee na arbitre yi daal daa jàpp ne li ñuy def day teguñu ko fenn ndax nag Lac de Guiers numéro 2 moom dafa daan kii di Boy Niang jël bu leer nañ moo tax yëglikaay bi itam ñëw na ci aw photo woo xam ne daal gis nañ ko yëglikaay bi neenal lees na na li leer ba leer day fees ba laal na ba ci des mooy def na kat appi lu tax kon arbitre ba soufflé bu loolu amul woon mu mel ni ki daal fi mu nekki ndey combat boobu moom coow laa ngay continuer yi wee rek mel ni tulli ak ku ci nekk nag yaa nga naan mbir mi man la waaye kii nga xam ne nii day moo di Mbaye Gueye xëy na tey di wax tamit ak Boy Niang ginnaaw ba Boy Niang ngay génne ca Leewtoo TV di wax ne Balla Gaye 2 kaasu fondem bi fi des na ñëw jël ko mbay Gueye ne na ko li leer ba leer dey yow Boy Niang li nga war a def mooy Balla bàyyi Balla Gaye numéro 2 moo tranquille ndax nag moom leneen loo def loola rek yaa ngi caaxaan mbay gay daal la mu xamal booy ñang daal gudul gàttul nee na ko tee nga bàyyi Balla Gaye numéro 2 mu toog palaasam loolu mooy li nga xam ne ni moom nga war a def mu mel ni kii nag diggante booy ñang ak Gris Bordeaux itam ku koy wax day daa mel ni daal ippo ngaari moom nee na loolu moom daludul sax ordre du jour jërul sax a yëkkati di ko wax am na leen loo xam ne ippo wax na ko nee na li leer ba leer day jàppal nee na kii di booy ñang day dafa rate maanaam daal la ko waroon a yóbbu ca ñooñee moo xam ñoom Balla Gaye numéro 2 la wala ñoom ñi nga xam ne ni moo di ñoom Gris Bordeaux moom da ko moom Boy Niang la ko ko doon may daal mooy mu daan Lac de Guiers numéro 2 jëlle bu leer leera leer leer waaye comme loolu amul moom moom jàpp na ne daal jàll moom wala waxi jàll su yebee teg ko nële moo gën ci moom mu mel ni ki nag seen combat boobu moom coow laa ngay continuer de ndax nag ginnaaw ba ñu daggee seenub xaalis moom ña leen yore xëy nañu di wax ndax seen see moom laal na leen ay laal yu méttee méttee méttee métti Mouhamed Ali wan nañ wan nañ ñu ko ak kii nga xam ne ni day moo di Burxaan Wàdd ku ci nekk daal ngay wax ca la nga xam ne ni day mooy ay sanction yoo xam ne teg nañ ko sa mbër ci wàllum koppar te nga jàpp ne mbir la moo xam ne daal mu diis a sa a diis la waaye ba tey rek duñ fa sori de ndax ci Pikine ba tey ki nga xam ne nii moo di Ibou Diagne wal waa Ibou Diagne daal moom baabooy la xëy di ko jàppale Ibou Diagne daal mu ngay dal sax ca kaw man su Diop nee na su Diop moom nekkul sax Pikine waa loolu daal mooy ay waxam wala boog bu dee Pikine waa moom daal jàpp na ne sax daa nekkul Pikine waa Gora Ndoye moom mooy président des jeunes amateurs moom la muy wax moom nee na Baboy ci boppam na ñëw jàppale ay ñi nga xam ne nii ñoo di ay frère am ay rakkam moo gën coow li loolu moo di wax kii nga xam ne moo di Gora Ndoye keneen koo xam ne nii moom mu ngay wax mooy rëg-rëg ndax nag dafa ñëwoon kere ñu ne daa soutenir si Boy Niang rëg-rëg nag nee na li leer ba leer day na leer nañ balaa ñuy sori làmb moom awma ci ab xarit laal maanaam mu nga ca yëglikaay ba ñu wan ñu ko moo di Tyson 2 Tyson 2 nag a soog waaye li leer ba leer day boo demee ca Leewtoo TV moom mu nga fay wax nee na góor a soog day la lay xam ne man Tyson 2 du ma moromam ba tey Tyson 2 mu ngay ñaxtu ca fa nga xam ne moo di waa Pikine nee na 100 pour 100 Pikine bi ñuy wax daal moom jàpp na ne loolu day boole wuñ ko ci tey suba waxi noppi du ñu xewle ba yëgal ko du ñu ko woo ci dara kon moom jàpp na ne loola moom bokku ca ba tey ca Leewtoo TV Mamadou Diop mbër ma nga xam ne nii day moo amoon ay jafe-jafe ci wàllum lam te yàlla teg ko tey feebar moom tamit mu nga fa mu mel ni kii daal ah ku ko seetaan day sa yaram dina daw te itam nag fi mu nekk nii daal ñu ngi ñuy xam ne day ku jar a jàppale la waaye Leewtoo point itam ñëw naa ñu ci écurie Fass Gris 2 ma gën dem ci sunu lam wax ne Fass day dignité amatuñ ko ci lamb ji lenn loo xam ne ni day day tax ñu la moom waa Fass jàpp Gris 2 jàpp na ne waa amatuñ ko ci làmb magam Gris Bordeaux itam ñëw na ca wax ca nee na toog na lu juróomi weer yoo xam ne day gisu ko déggu ko mu mel ni ki moom it day démb génn wax li ko naqari ci Gris Fass yépp yépp yépp ay mbir yoo xam ne daal yu doya doya doy waar la mu mel ni ki nag loolu tey moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi waaye li leer ba leer daal jàpp leen li am ba des day mooy moo xam Fass la moo xam Pikine la ba ca Parcelles ak Guédiawaye ak Bawol la ci mën a yem fu ci waaye mën a nekk daal li am solo te am solo mooy di waxtaan tey jegeñante ñi mënta àqalikoo moom wala ñu mënta bàyyante taala njaay te ñoo jéem a ànd te yàlla tax loolu de laay wax mbër yi man salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee à chaque fois ànd ak yéen seen revue de l'arène di nuyu Babacar bu baax moom mi ñu ñëwaloon ci revue bi Babacar nuyu naa la madame ñaa ay Faye maa ngi lay fay ah li nuyu di la ziar li nuyu internet yi suivre Leewtoo TV yëpp à travers le monde fu ñu mën a nekk rek ñu leen di bëgg di leen ziar rawatina nag fans club Leewtoo bi ak fans club Babacar bi bëgg naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. donc uh-huh. ñu daal di dugg dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi tey daal koy commencé ak uh, ki nga xam ne ni mooy per Doubalès moom tamit ba tey coow combat Boy Niang Lac de di continuer ndaxte ba tey ñaa ngi ciy continuer di si wax kii di Doubalès nag moom ñëw dal ci ki nga xam ne mooy arbitre bi nee na combat boobu jël amoon na leer na te looloo taxoon arbitre bi sifflé kon waroon na joxe verdict bi parce que kii di la degee daan na booy Niang waaw loolu waxi Père Doubalès la ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm comme ni ñu koy waxee rek. ah mën nañ ne moom tamit ku ko xam xam ne waa géejawaay la yaakaar naa ne mbëri ne géejawaay yëpp tey mën nañ ne mooy seen kilifa wala bokk na ci ñi leen yilif rawatina ku mel ni ay doomee mi ci am ku mel ni Balla Gaye ak Sa Thiès kon Lac de Guiers itam bët ba muy xool ñooñu la koy xool moom nag gis-gisam mooy que ne arbitre bi li ko tax a àtte waroon naa mën a joxe jël waaw loolu nag liñ ciy wax rek arbitre bi moom ak action am na ñu jàpp ne jëlli la mu àtte yaa ngi dégg mais bi ci biir atta bi bi loolu amee itam gis nañ ma consulter ay siisam ba mu leen consulter tamit xëy na dañ ko ne jël amul moo tax moom mu jàpp ne kon dañu war a bëriwaat ñu bëriwaat mu soufflé yaa ngi dégg loolu nag liñ ci mën a jàngate mooy que ni rek euh, làmb jooju toll woon na foo xam ne ni yow mi koy arbitré da ngay jàpp ne am nga responsabilité bu rëy rëy rëy parce que làmb la ju ne xa loo ju nga nekkoon na làmb joo xam ne lu nekk xajoon na ci te dèjà loolu mooy li ci am fees am na carte appui am na loolu fi mu nekk nii ñun en tant que ay reporter wala ñuy wax nii te faruñu fenn li ñu mën a xam daal mooy arbitre ne na combat si nul la mbër ya dugal nañ seen ay recours au niveau du CNG kon la ca des nag Babacar yoretu ko ay Aïssa yoretu ko du Talla Ndiaye du keneen du keneen li des mooy nañu bàyyi seen se ñoom ñu àtte bu ñu génnee verdict bi lu ñu wax ñu jàpp ci loolu parce que itam nag làmb moom baaxoon na coow waaye nag ñi newoon ci làmb ji gis nañ la ca xew gis nañ la ca am mais nag kàccir gi fi mu nekk nii wala yar ba moom seen see moo xam fu mu koy caw awale waaw nañ bàyyi nañ yónni yàgg comme ni ma koy waxee daal. waaw waaw ñu yónni yàgg Babacar ba tey des si combat bi parce que kii yi nga xam ne mooy euh, Père Mbaye moom tamit euh, ñëw na daal di nekk di artu laa mën a wax ki nga xam ne ni mooy Boy Niang parce que bi mu défier Balla Gaye nee na loolu du combat parce que fu mu toll nii na Boy bàyyi ki nga ne mooy Balla Gaye seen diggante nekkul lu war a mën a am kii di Gris Bordeaux tamit ñëw na seen diggante parce que nee na combat boobu moom du si sax wax parce que nekk na loo xam ne nekkul à l'ordre du jour du si débat. <laughs> Père comme maa ngi koy nuyu moom itam di ko siyaare di ñaanal jàmm rek comme ni ñu koy ñaanalee ñëpp ah. waaw ñoom comme muy Mbaye Guèye ak lees ak ñoom ñëpp ay mag lañ ci làmb ah Mbaye Guèye nag parce que ki nga xam ne moo di Boy Niang fii la waxee woon ci Leewtoo TV bërki dem bi ma ko jëlee mu ne Balla Gaye numéro 2 kaas bi fi des moo ko moom na ñëw jël ko balaa muy dagg su ko jël si ñu yóbbul ko ko mbay Guèye nag nee na ko effectivement lool booye boo génn ci sa xel ndax du ordre du jour du luñ mën a waxe yaag Balla Gaye 2 mënta ne na ko bàyyi Gris Bordeaux itam mu ne na ko parce que loolu moom du ci sax wax waaw loolu nag parce que euh, bu ñu xoolee composition lamb yi ni mu demee actuellement Boy Niang li ko doon gën a faciliter tey mu bëreeg Balla Gaye wala Gris Bordeaux wala keneen moo doon mu daan Lac de Guiers numéro avec pa mu daan ko pa avec la manière maanaam mu daan ko daan boo xam ne ni nit du ci ne di dem na dem na gauche ñëw na droite yaa ngi dégg mais nag comme loolu yàlla dogalu ko ci combat bi noonu ñu ko xalaate woon mu amee ni nag actuellement moom defe naa pour mu wax waxu Balla Gaye dina doon lu jafe-jafe-jafe wax dëgg yàlla parce que tamit Balla Gaye numéro li ma wax rek dafa jóge ci ay ndam yoo xam ne nii am ay adversaires yoo xam ne nii déjà ñu ngi ci kanamam kon tey booy ñan nag du ñu ko ne amoo droit défier Balla Gaye am na si plein droit parce que mbër la muy mbër nit ki moom am nga ne bu la neexee nga ne lii laa bëgg wala lii laa nangam kenn du la ko aaye mais nag ndax li nga bëgg mën cee jot foofu la affaire bi nekk waaw mais lii laa bëgg moom ku ne valable nga ku ne am nga droit wax ko mais est-ce li nga bëgg noonu nga koy jote wala di nga ci jot foofu tamit fa la mbir ma nekk booy Niang dama li ma koy wax daal mooy bu bu ko bëreeg Balla Gaye moom bu mu bu mu nekk lu koy tardeel fixation maanaam waaw parce que li tax mooy que ne am yeneen adversaire a ngi fi de taille pour moom bëri nañ fi am na ñu mu daanoon amee na leen revanche am na ñoo xam ne nii war na bëreeg ñoom muy combat jànq yooyu yëpp a ngi fi kon nag li ma xam ba des daal mooy que ni loolu moom mooy li ma ci mën a wax man ci côté boobu dañuy jógee si combat boobu dem ci leewtoo point net fekk fa tamit euh, jàngar bu ñu fa def euh, ci li nga xam ne moo xew écurie Fass ñu laaj est ce que Fass nekkul li jëm ci loo xam ne ni mooy éclatement tas ku nekk jaar sa yoon parce que démb tamit euh, grideur def na sorteem am na lu mu wax parce que nee na préparé na combat 5 mois gisul kenn ku dul Abass Ndoye bu demee entraînement du fekk kenn ku dul ñaar wala ñetti mëri ndaw gisul Tafa Gueye gisul ki nga xam ne sax mooy magam bi mu bokkoon ndey baay muy Gris Bordeaux ñaari nit presque la gis ba mu jeex muy ki nga xam ne mooy Tafa Junior ak euh, Pape Ndoye presque ñoom la defal euh, li nga xam ne mooy entrainement am mu nekk ay ñaxtu yoo xam ne Babacar mi ngi mi ngi bëri biir écurie Fass. waa mooy li may wax rek loolu lépp li ko indi mooy euh, pour man sama xalaat. àddina li ci nekk mooy ay nit comme li ma wax sànq bi may daanare suñu bokkee lu ñu mën ta xaaju dañuy waxtaan quoi xool nuñ koy doxale pour mu mën a avancer écurie Fass comme li ñu xam ñun dañu juddu fekk ko fi mu nekk écurie bu yàgg a yàgg a yàgg ay ñu yàgg ko formé ñu yàgg nekk ci lamb di ci wane seen bopp defe naa tey bu demee ba yegg si fii bu naree nax saay wala mu nar a tas kon ñi ko téye moom si korogee lay olof yi wax rek dañoo nar a mujj puso bi mu réer te loolu defe du lu war a mën a nekk moo xam président ba la moo xam entraîneur yi moo xam supporter ba ci mbër ku ne am nga ci par de responsabilité yaa ngi dégg waaye nag écurie Fass bu ñu koy wax dëgg dëgg dëgg écurie Fass xool écurie Fass dañu naan euh, Mbaye Guèye wala Tafa Guèye parce que tamit lu lu lu lu mbir mu ne fa mu doore rek te yaakaar na écurie Fass ak dooram ci loxoy Mbaye Guèye la ak ña àndaloon ba ñëw ci jaar ci ñoom ñëw ci ay ay rakkam ñëpp jaar fa ay mbër yu bare bare bu ñu lim duñ fi jóg ba tey mu yegsi fii mu yegsi kon defe naa ku nekk giri ku mel ni giri de doon bëri ko moom ak rëg-rëg masula am defet jëm ci goma bu toll noonu ah yaakaar naa bu fekkente ne loolu mu wax de noonu la demee wax dëgg yàlla yaakaar naa du normal bu fekkente ne préparation combat bi yëpp gisul kenn ku ko jàppale menum Abbas Ndoy la gis mbër yi mu nekk loon gisatu leen nangam nangam ba li ci am am ci defe naa loolu gënul loolu nag li koy dindi mooy ñu toog bët ak bët ñu waxante dëgg parce que loolu mooy tax mbir yi gis nga mbir li ànd li gën a bon mooy ànd taggante tàggoo jëwante maanaam ànd te yàlla taxul yàlla nañ ci yàlla musal kon ñoom waa Fass nañu bàyyi xel ci loolu mais loolu tamit dafay valable pour tout le monde lu mu mën a doon rek nañ ci jiital dëgg yaa ngi dégg ak waxtaan su ko defee bu juree njariñ mën na jariñu ñëpp quoi mais nag vraiment loolu mu wax yëpp yëpp moom bu dee noonu la demee moom Aïssa. waaw li ma jaaxal ko yàgg wax dañuy ndëpp dañuy problème yi day gën a bëri rek. est-ce que lu ñuy raay bañ koo wax bu fekkee dafa am lu ñuy raay bañ koo wax itam waaw góom day moom fii ngay gis nii buñ ko bëggee faj dinañ ko raxas ba mu set doog cee def médicament. mu du mën a wér. waaw loolu laa yaakaar bu ñu bu fekkee nag dañuy nëpp dañuy nëpp moom te nëpp ma la war a soo ma war a def nëpp ma ba rab rab ya dal indiwoo ko waaw buñ la laajee sowam nag nga indi sowam bëy moom. ah ndëpp ba nu mën a sotti ndax rab bu ne am na lu muy laaj nag bu dee rabu faas dafa laaj sowum nag ñoom ñoo di sowum bëy wala moom xar est ce que dinañ dina mën a dem du ma ko yaakaar ay sa ah, dañuy jógee foofu dem ki nga xam ne nii mooy euh, rëg-rëg moom nag ginnaaw bi ko gisee fii keroog euh, stat ñëw na si côté booy Niang ak yooyu mais ba euh, tey tamit mi ngi xamle que moom amul xarit ci làmb day wax loo xam ne rek day leer amul xarit ci làmb maanaam war na mën a bëree ku nekk waaw mbër la champion la Reug Reug macha allah comme niñ ko xamee lii indi wax ji nag mooy keroog dañu gis bi booy ñang di bëreeg Lac mu ñëw ànd ak moom fecc ci côté nit ñi ne lu xew kii caaru la dëkk kii dëkk Pikine dañ seeti naa ko wax ko soriwu ca na loolu du ci sori Reug Reug it génn na tey leeral na nee na moom ñëpp lay bëreel ah loolu nag yaakaar naa moom loolu ñu doon xaar de parce que nekk fi di wàññi adversaire moom sànni sa xaalis la wàññi sa succès te loolu amul leen njariñ ñoom ñëpp bi muy bi Modou Lo di bëreeg euh, Lac de su ma jubul bu njëkk ba xaw ma Balla Gaye am na ci benn combat am daal kër Eumeu Sène ñëw ba ci moom te pourtant ba ñu waree bëri dañoo bëri tey ñu ngi nii di bëriwaat seen revanche yaa ngi dégg kon li may wax mbëri rek encore une fois ñi nga xam ne wóor na li ñuy làmb boolewul ak ñoom ñooñu mënu ngeen a bëre da leen di xam mais dafa am ñoo xam ne du affaire sport la quoi il faut ñu jël cadre sport bi teg ko après mu mu jeex waaw bu ngeen demee retraite après ngeen continuer nekk ay xarit y a pour man foofu jafe-jafe amu fi ay sa Uh-huh. ñu def uh, démb Iba Mar Diop tamit uh, gala uh, ki nga xam ne ni mooy Zal Nengler combat bu ga boo xam ne tamit presque matul une minute Babacar Zal Nengler daal di jël ndam li. naa ko xale la boo xam ne nii bu macha allah xale bu am talent xam nii mooy almaami tamit noonu Zal moom dañuy daje gis a da ciy bëri fu ne ci àll bi daje nañ fa mu dëkk dëkk bi ñuy wax Nengler xam naa loolu moo indi turu Zal Nengler wi waaw ñu koy félicité félicité waaye kii bawal bi mu bokk mais di encouragé almaam yi tamit ak waa Kër Massar lamb noonu la affaire xale la woon xam naa moo tax rek mu ñëw jaay ko yëfu xale daan ko ci ay seconde mu jeex kon ñu promoteur bi ko tëggoon muy idaali ñi a a xam ne ñooy suivre seen revue de l'arène di nuyu Mame Tara Chéri Lébu ci caméra bi di nuyu Ousmane si montage bi di nuyu équipe Leewtoo TV ñoom Ndeye Kumba ñoom euh, biram ñoom euh, yàgg maar di nuyu képp koo xam ne yaa ngi Leewtoo TV moom moo maane Iba la fàtte ah di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi safoo Leewtoo TV mais tamit euh, di ndokkale ki nga xam ne mooy Eva Diallo di sœur ci Khadija Diallo te am euh, doom bu jigéen ñu koy ndokkale di ko ñaanal doom boobu noonu yàlla may ko gudd fan ak wér mu am ndey ak baay comme ni nga ko waxee noonu la Babacar ah. mu dund te am ndey ak baay nekkumba moo leen jox dédicace boobu noonu. Babacar tamit tey damay nuyu sama mag euh, di madame Kane borom MK Travel euh, tey muy feete anniversaire am ma koy ñaanal euh, gudd fan ak wér di ko wax dundal lu bëree bëri bëri mag la boo xam ne place yaay la jël ku nekk mu ngi lay topp xam nga di nemmeeku lu waaye bëgg mu nekk ci boo feebaree mu daw ci ka ñaanal gudd fan ak wér bu kenn séddalee dara ci ginnaawam incha allah. amin Aïcha di nuyu képp kuy suivre Leewtoo TV rek comme ni nga ko waxee à travers le monde mais du ma fàtte internautes yi ah, encore une fois parce que ñoom ñooy suñu doole yaa ngi dégg kon ñoom ñu ngi leen di nuyu fu ñu mën a nekk yaa ngi dégg rawatina nag fans club bu Leewtoo bi parce que loolu mooy li nekk ak fans club Babacar bi yaa ngi dégg bu ne fans club Leewtoo ak Babacar nag Aïcha ngi ci biir képp ku nekk Leewtoo yaa ngi ci biir kon nuyu nañ leen ziar leen Cissé ca Brésil maa ngi ah Fatma Fall Bergamo Italie ñoom Ndongo Fall xam nga gaa yëpp nuyu naa leen fàttewuma kenn ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm mais tamit gis nga tey lii may sol nii xam nga simis bu rafet bi ak dàll yi ak tubéy ji Aliou bu Yankaaw borom marché Thiaro yi moo fi jaar kon Aliou maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di nuyu commerçant yi nekk marché Thiaro yëpp yëpp di leen ñaanal jàmm mais du fàtte tamit sama tailleur yi ñoom Rimka Couture maam Cheikh borom hélas bu jéen borom Senova Couture non ay sa du mën a ñàkk il faut nga di leen nuyu parce que ñoo lay ñawal di la solal yaa ngi de képp nga xam ne ni daal yaa ngi ñuy nuyu yaa ngi ñuy bëggee ñu ngi lay delloo bëggee tuuti yaay Sarr maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko ziar Xavier maa ngi lay nuyu mu nga ca dëkk ba nu mu tuddati waaw mu ngi mu ngi France non actuellement mu ngi Sénégal Xavier Seck maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu koo xam ne daal yaa ngi ñu si ñu ngi lay nuyu équipe nationale di ñaan yàlla gën a coupe d'Afrique bi indi ko ci réew mi réew a neex jàmm di wax ne ah xol bu sedd yaram bu sedd yàlla na ko ñëpp am Aïda mburu mi ma jox ci suba neex na trop macha allah maa ngi lay nuyu di la ziar Aïda Diouf Rose a ngi ne maa ngi koy nuyu di nuyu équipe bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que Talla yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa